Kifne TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkoon Kifne TV Sénégal. Assalamu asalaamaaleykum yéen euh, téléspectatrices ak téléspectateurs Kifne TV man le euh, Cheikh Diagne nekk président mouvement ITS Askan aussi euh, tête de de la coalition Buntu Bi ci élection territoriale 2020, incha allah. fas yéene liggéey pour indi alternative dans la commune de Rufisque Est ci daal la ko waaw commune bi Rufisque nag dañ ko bëgg a taxaw avant loolu dama bëgg expliquer rek coalition bunt bi nan la demee fii si Rufisque Est parce que ñun mouvement Yitté Askan Wi dañ ànd en collaboration ak mouvement conscience citoyenne bi nga xam ne président Arona Sarr moo ko dirigé Nous, waxtaan am ay convergence de vue euh, waxtaan aussi qui programme waxtaan ci nan la ñuy awalee euh, mbir yi bu commune Rufisque Est. Mm-hmm. ci fànn yooyu yëpp ñu jubóo si taxaw suñu programme et tout et au terme des discussions on a fait euh, la liste. Mm-hmm. et que mu diriger liste majoritaire nekk suñu candidat suis président Arouna Sarr. Mm-hmm. man ma diriger la liste proportionnelle. nekk aussi candidat au niveau de de la commune. parce que c'est pas aujourd'hui lañ de ne dañuy laaj mairie ça fait très longtemps ñun dañu yàgg nekk ci croix bi ñu jóge ci croix bi nekk ci conseil de quartier nekk ci collectif nekk ci ay actions yoo xam day œuvrer pour le développement de la cité donc politique de continuité la donc euh, li ñu ci jublu rek mooy euh, am yéene am xalaat yu rafet ci dëkk bi yoo xam ne jàpp nañ ne bu nekkul ci instance de décision yi nekk à un certain niveau dañuy am euh, dañuy nekk dañuy nekk dans l'incapacité de faire des choses pour notre commune donc, euh, si on est élu au niveau de la commune de Risque Est et que nous mettons le budget à notre disposition, on fera, Inch'Allah, le nécessaire pour euh, faire avancer les choses au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau aussi de l'entrepreneuriat féminin, Inch'Allah. Alors, ah, mon question, vous, vous, vous parce que bien avant, nous n'avons que mairie, il faut faire que nous qu'on président conseil de quartier et on a réussi des choses au niveau du quartier bien parce qu'on a réussi à assainir tout le quartier bien nga mais ça, on ne l'a pas fait avec euh, le budget de la mairie ni le budget de l'État. Mm-hmm. On a euh, une organisation ici à Colaban qui s'appelle le collectif pour le développement local de Colaban mm mm-hmm. à travers la collaboration yi nga a ne la am ak euh, mm-hmm. quartier à hauteur de 1 million en matériel. Et sur ce, on a mis sur place un programme d'assainissement du quartier de 6 millions. Donc ces 6 millions-là, il nous manquait 5 millions. Et ces 5 millions-là, on s'est organisé pour le rassembler toute cette somme d'argent-là et qui a fait qu'on puisse accéder tout un quartier. Donc, euh, ce modèle-là, d'un partager au niveau de tous les quartiers de risque est nous Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une compétence très certes, mais on peut s'organiser au niveau des quartiers pour faire assainissement bi nga c'est à notre niveau assainissement bu baax lay parce que déjà c'est réussi dans quatre quartiers au niveau de Colobane mhm. sur les quatorze donc noonu la ñuy continuer donc expérience boobu lañ xam ne mhm. bis bu ñu aussi bëgg nañ ko indi partager ak population yi mhm. fexe am assainissement dans tous les quartiers de risque Est incha c'est possible waaw Sococim ak Rufisque Est moom Sococim euh, amalgame day am foofu. tuuti mm-hmm. Sococim ki ñu gën a tooñ ci wàllu Sococim mooy état du Sénégal parce que Sococim c' est une entreprise privée. Mm-hmm. loi dafa wax ne entreprise privée boo ñëwee installé wu dans le périmètre. Mm-hmm. communal ñëw installé wu dans un pays étranger comme le Sénégal loi bi lay permettre ne la 30 pour cent de ton bénéfice ça devient à l' état. donc au delà de ça war a fay li ñuy wax impôt local impôt local yooyu bu njëkk ba. mais léegi mu SEL. dafa am SEL VA. am SEL à valeur. Mhm. ajouter des valeurs locatives mais valeur locative bon, Tëngéej moo comment. moom valeur ajoutée bi dañ ci décider ni dañ koy jël séddale ko toutes les communes du Sénégal ce qui est une décision mhm. mauvaise mhm. jàpp ma ni mais beneen décision mooy valeur locative bi nga xam ne Tëngéej lañ ko war a jox boobu dañ lay defal exonération fiscale depuis 2006 donc en 15 ans a perdu plus de 30 milliards y a naa ne 30 milliards yooyu bu duggoon ci développement Tëngéej heure bii du ñu am ay problème mu tali du ñu am ay problème mu làmp du ñu am problème mu leneen. Mm-hmm. donc encore une fois appel bi ñuy lancé mooy à l' de l' du Sénégal. Mm-hmm. pour que ñu arrêté exonération fiscale yi nga xam ne moom la defal entreprise étrangère yooyu. Mm-hmm. entreprise bu mel ni Sococim aussi fay patente bi comme il le faut. parce que fi mu ñu ngi waaj def four six ñuy tàllal loxo état di ko wax ci moom lañ yaakaar pour ñu bañ a defal exonération fiscale entreprise bu mel ni Sococim mhm. entreprise bu ngi fay état na fay commune bi li mu ko war a fay mhm. liggéey li ñu war a defal dëkk bi donc encore une fois Sococim entreprise étrangère la bu ñëwee mënoo ko ne doo défendre say intérêt day défendre intérêt mais ñi mu fekk en tant que état mhm. ñoo war a protéger population bi jàppale population bi fexé ba nga xamné ne li ñu fay muy impôt local ko fay kenn du ko mais la première chose à faire mhm. une entreprise bu mel ni Sococim mhm. toll ni Est di fay trente millions mhm. loolu déjà c'est pas normal parce que c'est une entreprise qui fait des bénéfices à hauteur de centaines et des centaines de milliards alors que c'est des Français cet argent là au lieu muy développer France waroon na développer Rufisque d'abord moi, né normal na Rufisque Est amul tali pavage tali pavage en général Euh, ciment bi koy defaree. Mhm. ciment bi di jóge suñu commune ba pare mënuñu am accès à ce ciment là ça pose problème. Mhm. donc ñun bu ñu ñëwee yor commune bi loolu la ñuy njëkk a régler sur place avec notre candidat Arouna Sarr parce que jàpp nañ ne su ko si ni ko état bi bàyyee. ñu doxalee te nga jaaduwul mhm. te loolu combat la xam ne bëgg nañ ko porter. 30 millions mënul régler benn problème. mais su ko si mu war a fay na ko na ko fay. dafa dëkk bi te loolu mu war a fay nag mooy exonération fiscale bi. mooy li nga xam ne ko koo jéggal loolu nañ ko teggi parce que soo suñu daf lay wax ne la mm-hmm. li may def nii RSE la mm-hmm. un milliard trois cent à la ville mm-hmm. trente millions à l'est deux cent cinquante millions à Bargny boo ko boolee c'est environ un milliard six cent pour un département de c'est pas normal alors que soo à la place devait payer 6, 7, 8, 10 milliards. Parce que instant, il y projet 6. Mm. Ils vont faire des centaines et des centaines de tonnes de ciment encore de plus par jour. Mm. De l'eau nous souffle, mm. parce que c'est des concessions minières. Ils ont état bi ko defal suuf suñu la mm. donc nous, il nañ a suñu développement yàlla li ñu jox comme xéewal ci suufu soko si boobu

non coalition la xam nga coalition ñun dañu am suñu mouvement qui Askan bi liggéey yoon mhm. euh, pour être maire de risque Est moom aussi mu am mouvement am euh, conscience citoyenne liggéey yoon mhm. pour jël mairie Tëngéej léegi Il euh, y a un candidat candidat tout le monde sait que c'est dañu bari mhm. mais quel que soit le nombre de candidats kenn mooy nekk maire donc si les s'il y a des convergences d'idées war nañ mën a toog retrouver autour de l'essentiel c'est ce qu'on a fait avec le président Harouna Sarr ñu waxtaan boole suñu programme boole suñu bébé boole suñu lépp def ko benn moom mu nekk tête liste majoritaire man ma nekk tête de liste proportionnelle mhm. ñu jéem a dox ci suñu programme nag am nañ euh, programme bu am solo ci wàllu éducation moom laay wax stigmatisation bi nga xam ne moo existé mhm. au niveau des écoles élémentaires avec le port de blouse mhm. bëgg nañ ko dindi ñi di dem école privée sol ay blouse ñi dem école publique bañ a sol ay blouse loolu dañ ko fi bëgg a dindi école publique yi ñu toppatoo leen accompagner leen fexe ba ñu fay jànge ñëpp am ay blouse ñu taxaw ci toilette école yi parce que encore une fois toilette é ecole Euh, taxawaay bi des na foofu trop parce que hygiène dafa baax si jàng mhm. donc toilettu école yi bëgg nañ fexe ba nga xam ne toilettu école publique yi nga xam ne ñoo nekk fi Est mhm. mu nekk des toilettes yoo xam ne vraiment c' est bien euh, entretenu et puis c' est bien géré et puis am na am na matériel et tout ça mhm. euh, fourniture scolaire aussi bëgg nañ ci accompagner parents d'élèves yi parce que mbir la yoo xam ne métti la yoo xam ne dafa cher ak conjoncture bi et tout ça bëgg nañ accompagner parents d'élèves yi en matière de fourniture scolaire assainissement bi expliqué naa la que en matière d'entrepreneuriat féminin aussi Nous nañ taxawal ay fonds yo xamni ni mhm. ci ak ay banques pour ñu financer tous les groupements de femmes qui sont au niveau de mhm. risque Est sans parti pris je dis bien sans parti pris mhm. encore une fois nous buñu jotté dégué inshallah dañuy wane ni ñun benn parti moo fi am moy dëgg amul ki fi la fa amul kële fa la tout financement qu'on mettra sur place pour les femmes inshallah, on travaillera inshallah pour que toutes les femmes puissent y avoir accès. Lors lañ koy liggéey incha Inch'Allah. la première raison moi, je suñu gox rek. Mm-hmm. encore une fois. Mm-hmm. sa loxo mënul sa parce que mm-hmm. tu n'as pas accès au budget pour servir les populations. Pour nga servir population yi Si nga la situation change changer au niveau de ta carte de ton quartier changer dem nga change situation au niveau de ta commune affaire yi difficile parce que poste mon defal dëkk mhm. budget dañ ko pour le budget boobu nag ñu ne ku politiqueul doo ci am accès mhm. loolu tax ñu politique pour am accès am ci accès mhm. wala ay projet yo xamni japp jàpp nañ quand on aura accès au budget Inshallah allah ko utiliser defal dëkk bi parce que dëkk bi encore une fois li fi war defal bari na dëkk bi manqué na ay tali manqué na ay lampe école yi baaxul manqué na ay marché femmes yi amuñu toppatoo. Mhm. te encore une fois ñun suñ coalition. Mhm. dañu jël décision suñu biir programme. Mhm. ne bu jotee ci maire bi incha allah bëggatuñu benn jàkka di fay courant wala nga fay ndox. loolu jàpp nañ c'est pas des dépenses énormes maire bi attan na ko donc maire bi daf ko war a gérer. ak église yi incha allah lieu de culte bépp lieu de fi nekk dinañ la jàppale ba nga xam ne mm-hmm. sa électricité ak sa eau dinañ ko jël en charge totalement incha allah. social moom si lañ dëkk ñu amuñu kenn amuñu kenn ku ñu financé ah. Mm-hmm. pas de financement. Mm-hmm. dañuy jël avec les moyens di corps di liggéey. donc social bu fekkee da nga dëkk ci koñ aussi euh, bu fekkee yàlla mu ngi lay suturaal da nga war a am un peu de solidarité envers les populations yi nga xam ne moom ko dëkkal tout le monde sait que conjoncture bi métti na Sénégal métti na mm-hmm. liggéey amul jeunesse bi liggéey situation bi difficile na mm-hmm. donc képp koo xam ne suñu borom jox na la dara war nga mën a def coow astu def ci social bi mm-hmm. loolu pas ndax da ngay politique nga def ko ngir sa diggante ak sa borom ngir social parce que ëllëg yàlla da koy fay incha allah bëgg nañ ci am payu yàlla loolu daal moo tax ñu nekk si man sama engagement politique boobaak léegi ça fait 11 ans je suis en 11 ans d'engagement

et puis ay jigéen lañ ñoo xam ne xam nañ fi ñuy teg seen tànk parce que kenn ku si nekk jiite nga mbooloo moo xam ne yow dañ la investir si liste bi te liste bu instant euh, en même temps que le président Cheikh Tidiane Gueye ou bien Arouna Sarr ñoom aussi dañuy nekk des conseillers ou bien des conseillères au niveau de ces maires yi mhm. organe de décision yi instance de décision yi dañ ko dañuy taxaw toutes les décisions te bu boobaa elles auront droit à la parole mhm. pour pouvoir défendre les intérêts des groupes qu'elles représentent yàlla Mhm. en tout cas lu am. Mhm. comme mais l'essentiel, tout ce qu'il faut faire comme travail tout ce qu'il faut faire comme engagement. Mhm. tout ce qu'il faut faire comme terrain on va le faire. pour gagner. C'est ici, ñu population et le monde on a été toujours à leur côté pour les accompagner dans leur projet donc ce n'est pas bien les décisions politiques politique les du population donc on va vers les populations de manière très libre et très sereine pour leur dire que nous on a un projet pour Fisc Est et on aimerait que euh, vous nous accompagniez pour qu'on puisse Inch'Allah, changer les choses au niveau de la commune de fisc Est parce que problème yi barina na am nañu fi nek def nañ fi 12 ans japp nañ ni buñ fi joggé ñeneen ñew war nañ ci mën def plus que ces gens là te ñun euh, ci tank yooyu la ñuy dox ci walu éducation walu santé walu environnement ak domaine yi nga xamné moy euh, promouvoir le développement de la commune de Rufisque Est. wa euh, non je dis man duma duma duma le principal candidat j'ai dit tout de suite que je suis la tête de liste proportionnelle au niveau de la commune de Rufisque Est. Mm-hmm. Maintenant, la tête de liste majoritaire au niveau de la communauté de s'appelle Aruna mhm. mon candidat direct moi je viens après lui. Mhm. donc euh, comme nous ma la mhm. coalition a un programme.

suñ àndandoowee booloo jéem a xàccandoo dóorandoo yàlla mën na def ñu am dara et que mbébét bi nga xam ne moom lañ am ci dëkk bi mhm. dinañu permettre ñu mën ko réaliser di ñaan yàlla yàlla sottal loolu ci mhm. seen mbégte ñoom ñëpp incha allah waaw maa ngi sant euh, di gërëm euh, téléspectatrices ak téléspectateurs Kifne TV mhm. euh, di leen wax ne seen télé bi moom macha allah dinañ gën a vulgariser information pour que gars yi ko suivre dégg naa c'est une télé très suivie au niveau de Kër et environ donc à aussi il est grand temps que ngeen gën fi présent ce qui fait que nit ñi dinañ leen gën a découvrir gën leen xam encore une fois maa ngi leen souhaiter bonne réussite pour euh, ce projet de télé euh, Kifne TV. merci beaucoup monsieur Sarr jaajëf. waaw euh, salaamaaleykum maa leen di nuyu leen ziar di rafetlu teewaay bi di nuyu sama bopp yi ak suñuy jàmbaar yu jigéen yi. man li ma siy wax sàcc ba laa tudd dëkk fii euh, li ma animé ba ma ànd ak Cheikh si coalition am parce que avant ma siy dugg seetlu naa ko seetaat ko seetantal ma gis ne nit la ko xam ne il est très ambitieux am na taxawaay si goxam te bëgg na avancement wu dëkkam te nekk na nit ku sincère nekk na nit ku respecté kàddoo parce que politique dafa bari ñuy wax ci sànni mais bi ma jàngatee si moom jàngat si ñeneen ma gis ne moom waxam toujours li ma siy dégg mu ëpp si waxam ma jàpp ne loolu mooy li sincère si moom mooy li nekk si moom te mooy li mu gëm. muy lan à chaque fois waxtaanam yëpp mooy développement wu Colobane kuy murit ma di ko dégg à tout moment muy waxtaane loolu fu mu waxee rek xalaatam te nag yemalew ko ci benn fàcc pàcc yëpp lay xalaate développement ci wàllu éducation gis naa ñu muy dimbali seeni doom ci wàllu jàng gis naa am maintes reprises muy fayeku salaire am di fayal ay di ko fayal ay nit si seen wàllu njàng ngir dimbali seen i waajur si wàllu dëkk bi aussi gis naa si muy taxawu ay nit si wàllu faju lépp loo xam ne daal waroon na maire bi fi toog dontale moom mu ngi sant yàlla mais li ko yàlla di wërsëgal mu néew mu bari mu ngi siy def warugar wa nga xamante ne ni tey maire bee ko waroon a def ba tout récemment rek taxaw nañu fii courant coupé mu xool hôpital bi benn làmp tàkk fa lépp lëndëm mu wokk ma na ma escalier yi nit mun na ko tëdduwaale avec conscience tranquille ma ne ko loolan la mu ne mu xoolal hôpital bi am na ay ñu fa wasi nekk fa seeni bébé courant baa ngi ñuy coupé dara tàkku fa bu naree fanaan ba bës ñooñu nan la ñuy def mu jigi mu ne est-ce duñu xool kan moo am ci groupe ma luye groupe bi ñu yóbbu ko fa bu bës ñu delloo ko ma xalaat ne nit kuy xalaate noonu am naa yaakaar ni bis biñ ko dénkee dëkk bi di was ci dëkk bi am naa si yaakaar ne dina ko def à cent parce que li nga bari lawul di si def sa kemtalaay kàttan ngir njëriñu dëkk bi am naa yaakaar ne bon bi ñu yëkkatee dëkk bi teg ko si sa loxo di nga def de plus hmm. encore une fois loolu moo ma gën a animé à ce que ma gis ne kii ku ko jàppale vraiment di nga am maire boo xam ne maire bu extraordinaire parce que nit booy xaru pour fal maire da ngay fal ki nga am yaakaar si moom te man je sais très bien que ne moom mii tey bu toogee fa ñuy toog

comme nous ko expliqué émission nous, ñun jeunes nous ñu nekk quartier bi nekk Nord. waaw le président Cheikh Tidiane comme nous ko nous mouvement dañ ko mouvement Askan mouvement alternatif lañ wax démocratie ñëpp ñoo ci am dans ñëpp ñoo ci waaw dañoo waxtaan ñun ñëpp ñu def président mouvement bi te le président mouvement Askan man mii di wax ak yow nekk le président d' organisation noonu laa mën a ñëwee nekk président mouvement Yitté Askan Wi ndax si démocratie la ñuy dox ñu mouvement boo xamante ni moom moo ko créé sama mouvement la maa ko moom kenn amu ci droit kenn amu ci kàddu kenn amu ci dara ñun demewuñu mouvement noonu mouvement bi ñuy doxee mouvement démocratie la ni mu ci amee kàddu noonu lañ ci amee kàddu ba élection locale yi jub si avant élection locale yi nag moom mu ngi doon def si social wàllu sukkaru koor yi le président Cheikh Tidiane Gueye day dem comité bu nekk mu def ay sukkaru koor di organiser tournoi boolu beñe pour les toutes les quartiers yi nekk Colobane de Nord mu dem fa quartier bu nekk mu jël fa jeunesse yi indi leen ci terrain yi lendeg bi ñu kaaf reetaan mu defar booli beñe ku gañ jël ko loolu lépp ci activité sportive la mu koy motiver jeunesse bi ñu bañ a nekk ci leneen wala ñu bañ a dox ci leneen idée boobu yëpp bu ko amee nag ñun ñu nekk ci mouvement bi ñu jiite askan bi ñu ànd ak moom local ñëw du Arona sar rek moo ko proposé nag comme mm-hmm. comme comme coalition bëri na leader yu politique yu fi ñëw ñu bëri bu fekkee permettre nañ ñu lépp mm-hmm. mën nañ lépp bu fekkee permettre wuñ ko te on avance mm-hmm. on avance waaye léegi leader yu bëri ñëw nañ fi ba mu mujjee juboo ak Arona sar Arona sar nag daf ñoo proposé comme li ñu ñeneen proposé woon ndax ñen ñu bari tamit dañuy proposer pour ñu dugg seen liste te ñun ki ñu àndal am na capacité nekk liste tête de liste mm. majoritaire comme ni ñu ànd ak Arona Sarr mais ñu waxtaan ba déggoo comme moom du xëccoo dara du du xëccoo dara te ndamu ñëpp la bëgg ndamu Colobane Guy Marius la bëgg moom la jot a déggool si mu nekk si tête de liste proportionnel mais ñi ñu dégg ñëpp ñu proposé ñu dañoo bëggoon dugal seen liste te ñun joxewuñu noonu mm. te suñu mouvement ëppul seen mouvement seen mouvement ëpp suñu mouvement doole. moo tax ñu ànd ak Arona Sarr def coalition bunt bi pour ànd si ak le président Cheikh Tidiane ak Arona Sarr tête de liste majoritaire président Cheikh Tidiane Gueye tête de liste proportionnel ni mu ko waxee nag loolu lépp ci Rufisque Asib mébét bi mu am noonu pare na pour taxaw intérêt Rufisque Asib yëpp macha ñun en tant que boo gisee ñun ñu ko toppale président Cheikh Tidiane Gueye bañ ko ba ñëpp dañ naan booy bu ndaw bi lu ko nit ñi di toppee. parce que ñëpp ay booy lay àndal ñun ñëpp ay jeunes lañ bi si njëkk mooy pré ASC Lendeng bi le président Cheikh Tidiane Gueye moom mooy nit ki nga xamante ni moo njëkk a ñëw defal leen ay loisir solo leen ay loisir te lépp lu ASC bi nekk le président Cheikh Tidiane Gueye mu ngi ci kon kooku mu ngi wër lu neex jeunesse fu moom moo nekkoon président ASC Lendeng jóge fa nekk président conseil de quartier ba pare wax na la ko sànq moom moo chargé wu lépp lu nekk porte parole collectif kon kooku am na ay ndomba tànk macha allah ñu koy ñaanal nag lii muy dugg te ànd si ak coalition bi suñu borom defal ko ko te bu suñu borom defalee ñun jeunesse bi nañ ci gis suñu bopp ndax fu ñu nekk mu nga fa fu ñu taxaw mu nga fa lu ñu soxla moo ci gaaw di ballon di dossard di lépp jeunesse yi bu ko soxla soxlaa tournoi booli beñe lépp rappeurs yeeg ñëpp da leen di jàppale mention kon boo ma wàll laajee si jeunesse bi dama ci am contentement bu baax a baax a baax. merci beaucoup waa Kif TV di leen ñaanal tamit sa kaw sa kanam rek ndax rafetlu nañ li macha allah yal na yàlla yokk xéewal incha allah ok merci beaucoup. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di kontaan Sélé Lo nekk mouvement yitteel askan wi si Cheikh Tidiane Guèye président bi. nekk koo xamante ne ku baax la ku yaru ku teey ku dal ku am diine ku xam àdduna ku nekk ci koñ bi nag ma la Colobane bi mu mais mel na ni tëngéej yëpp ñëpp lay jàppale xëy na nit ñi dañoo yaakaar ni Colobane Guy Mbind la yem mais yemul fii de li muy def da koo boole sutura sutura la kay defee day defal nit ba pare te nit ñi nga xam mooy toppatoo nit ki tey boo génnoon tey mën naa ne tëngéej ba mu daj ñi nga xam bari nañ de ndax seq nañoo xam lu ne mais lépp ci sutura lañ ko seq ak moom kon tey buñ toll fii campagne yi jub si mm-hmm. gëm naa ni te ñun xale Colobane bu ñu ak mag ñi ñëpp dañoo war a gën a takk jàppale ko la xale bu jar a jàppale la xale boo xamante ne tey Colobane du Nord bi aide tabaski musuñu koo lekk mu jël ci ñoo xamante ne tey ba ñu lekkee aide tabaski ñoom ñëpp dañ doon wax naan seex yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér gi yaram ndax nee ñoom mosuñoo lekk ren tabaski ci moom la njëkkee kon ku mel ni ku ko xool tey war nga kaa mën a jàppale te xam ne bu demee ndam bu tëngee yëpp la tey bu toogee fële ndam bu tëngee yëpp la seetaanu kenn waaw seet mu ngi ci ngénte yi mu ngi ci mariage yi kenn ñaanu ko yàlla mais dëj sax day ñëw teew boole li mu am ak dooleem ak yëppam ànd ak équipe bi yëpp nag du bàyyi kenn ànd ak ñëpp dem teew fa teew bu rafet boobu bu fa jógee nit ñi dañuy kontaan kon ku mel noonu ku jar jàppale la waaw mu ngi dimbali nit ñi nag bu baax. ñu jigéen ñi mm. mu ñuy jàppale de. mu ñuy jàppale macha allah da ci nekk yaa sant yàlla da ci nekk boo xëyee di nga liggéey mm. wàcc ñoom sa kër. waaw lépp cheikh la ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla fal cat. xalisturaal ko jàppale ko ci barke Seydina Muhammad ba lu ñu yóotu mu ko toog ko ñu kontaan ni ñëpp waa Tëngéej asalaamaaleykum mbooloo maa ngi leen kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen jégalu ci guddee bi nag lool waaw man la Amina Thiam di présenté waa groupe Gëm sa bopp wala ban buy murit waaw Cheikh moom mu ngeen ma laaj ci man ma ciy sawar lool waaw ndax foofu dëgg yàlla nag ku neex a jàppale la ndax ku gëm boppam la tam jàmbar dëgg la jàmbaar piir la boole ko ñu àndal ñoom Matar ak sama ñoom tontoo ñee toog dëgg yàlla bu ñu duggee ci moom daal ba tey réccuwuñ ko benn yoon macha allah laf cat waaw ndax Cheikh lu mel nii ku yaatu moo koy def te Cheikh dafa yaatu bëgg nit gouverne boo nekkee si naqar mu ànd ak yow nga nekk ci bànneex mu ànd ak yow te ñun xam nga jigéen ñi bëgguñu kenn ku ñu jàppale. te wax fa dëgg yàpp yàlla jàppale ñu ci biir jàppale ñu itam ci biti te ñun ku ñu jàppale rek lañ bëgg surtout ñun waa groupe gëm seen bopp ndax liggéey dong lañ bëgg te fa dëgg yàlla nag macha allah ñu ngi ñaan yàlla mu jëm kanam mais ñu ngi liggéey alhamdulilah rabil alamin si kaw cheikh bi ñu àndeeg cheikh ñu ngi koy ñaanal yàlla nag suñu borom bi yàlla mi man tey tey def di séddale yàlla na bokk ci ñuy séddale loolu moom naka bàyyi ñun rek xam nga wax baaxul waaw kay naka bàyyi ak ñu ne boobaa ñun dinañ jëf bu soobee yàlla lii mu ñu lebal dinañ ko fay ba mu gis ko bu neexee yàlla dinañ ci yàlla mën na ko suñu borom bi yàlla na ko def te yàlla bu yàlla tas yaakaar alhamdulilah Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal